wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin min nashli haashimin fa naqluhu min taahirina wa taahiraat wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahum wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi di bàyyi xel seen télévision Mouslih TV ñi ngi sant yàlla bu baax cant gu yellool jëmmam ju màgg ju tedd ju kawe ji ndax xewel bu ñu mën a am kenn joxuñu ko ku dul allah subhaanahu wa taala moom moo ko wax ci alquraanul karim baad auzu billahi min alsheytaani rajim wa ma bikum min nicmatin fa min allah allah azza wa dafay wax ni bépp bépp bépp xeetu xewel bu ngeen am ma sàmb joxu leen ko ma demb joxu leen ko mais allah subhaanahu wa moom moo leen ko jox kon yàlla boobu nga xam ne ñi ngi doon ñaan yàlla mu may ñu fekkee weeru koor may nañu ñu fekkee ko kon ñi ngi naan ko yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultaanik mbokk yi mbégti lañu àndal ndax fekke woon nañ ko daaw ànd ko ak yéen yàlla ci mbaaxal ak ndogalam ak coobareem may nañu fekkewaat ko ren kon lu ñu den lu dul di ànd ak yéen ci weeru koor gi di ñaan allah subhaanahu mu yombalal ñu bépp xeetu jaamu yàlla boo xam ne loxo daf koy def nopp daf koy def bët daf koy def tànk daf koy def làmmiñ daf koy def bépp cër di ko def yàlla nañu yàlla tàggatal sunu cër yi ba ñu mën a góob bépp xeetu xéwel boo xam ne weeru koor indaale na ko mbokk yi fekkee giñ ko fekkee du cër ndax bari na ko fekkee yaakaar ne moom dafa mérité fekkee weeru koor déedéet yàlla la neex mu boole la ci xaaj bi nga xam ne fekkee na ko daaw fekkee na ko ren kon li ñu war mooy i'malu ala daawuda shukra ñu bañ a bokk ci qalilan ma yashkuruun waa ñooñu yàlla bi mu leen defaree ay xewel xewel yooyu tooguñu rekk naan alhamdulillah déedéet waaye xewel yi dañ ko transformé ci ay jaamu yàlla kon ay jaamu yàlla lañuy sante yàlla ci weeru koor gi mooy nekkat yow yàlla kër ga ma dëkk yow yàlla quartier ba ma dëkk yow yàlla école ba may jàngee yow yàlla université bi may jàngee yow yàlla entreprise wala société bi ma nekk am na ñoo xam ne mag ñoom ñoo fa nekkandoo woon daaw ci weeru koor bu ñu amee tàndarma yoruma tàndarma ñu may ma tàndarma su ma amee ñoom amuñu ma daal leen may bu ngoon jotee kenn ku nekk naan sa moroom man maa lay invité ndogu ñenn ñi nga xam ne ñoo nekkoon suñu ay kilifa ci liggéey bi buñ daan wàcc vingt heures dix-sept heures ñu ne dem leen ngeen ñibbi ngir ngeen waajal seen ndogu ngir lan yërmande bi ñu amoon ci ñun waaye am na ci ñoom ñoo xam ne tey ñun ñi ngi dox ci kaw suuf waaye ñoom tey ñi ngi ci biir bàmmeel allahu akbar kabira daaw bi ñu nekkoon ak ñoom ci liggéeyukaay yi ci dëkkuwaay yi ci àndandoo yi ci oto yi kenn xamul woon ne kenn xamul woon ne moom lay yàlla di bàyyi fii ba woori weeru koor bi di ñëw wala moom la yàlla di jël kooku yàlla kese kese kese la leeroon kon yow yàlla yaa baax li nga dogal nangu nañ ko ndax ñii ñu ñàkk suñu sañoon ñu ànd ak ñun am ci yiwu weeru koor bi waaye sa màndute sa baax sa xereñ sa xam loo xam ne ñun jaam ñi xamuñu ko moo waral nga dogalee noonu yow yàlla nangu nañ sa ndogal duñu def lu dul ñaanal sunu way dawlu yi ñi ñu jege woon ci deret ñi ñu jege woon ci meen ñi ñu jege woon ci dëkkuwaay ñi ñu jege woon ci barabu liggéeyukaay ñi ñu jege woon ci wàllu diine ñi ñu jege woon ci wàllu sénégalité wala ci africanité ñi ñu jege woon ci àdduna bi yépp nga nekk Égypte nga nekk Maroc nga nekk Tunisie foo mënoon nekk te yàlla dogal nga nekk ci biir suuf weeru koor gi ñu ngi ñaan yàlla ci barke weeru koor ci barke alquran ji nga xam ne moom la yàlla wàccee ci weeru koor sunu borom subhaanahu wa yërëm la amin ya rabbal alamin mbokk yi li jar di sant yàlla dafa bari gis ngeen ba ñu wooree ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent am na ci ñoo xam ne li yàlla araamaloon moom la ñu tàmbaliwaat mooy dem nañu jëlaat mèche yi dem nañ jëlaat perruque yi ñi génnewoon seen taybaas yi ñi génnewoon seen ndoket yi ñi génnewoon seen maam yi maam boo yi muy taay maam yi ñi génnewoon woon grand mbubb yi ñépp lemaat nañ ko fas yéene ko dugal ci armoire bi mbóoti di ko saw janax yi di ko lekk ba kooru déwén yow moomu nga xam ne bokk nga ci ñoonu amaat nga occasion pour nga tuub amaat nga occasion pour nga tuub moo ne li nga waxoon yàlla ne bàyyi naa ko ci biir weeru koor weeru koor passé nga delluwaat ca yàlla may la nga fekkewaat beneen weeru koor ah, paaka ñaari boor la mun nga ci ame amee ngërmande yàlla waaye mën nga ci amee itam sànjub yàlla te kenn yéenewul sa moroom waxatuma la ak sa moroomu jullit sànjum yàlla kon da ngay tuub yàlla da ngay tuub jëm ci allah subhanahu wa taala ne yàlla loo ma tere mun naa kaa bàyyi mèche yi greffage yi nga xam ne weeru koor bi yépp laaluma ko mooy ne loolu bokkul ci man li bokk ci man mooy lekk ak naan te nan nga ma ko tere yow yàlla mooy da nga ne ma bu jant bi fenkee wa jant bi di so ndax xam nga ne mënuma ñàkk lekk munumaa ñàkk naan ndax dafa bokk ci sama dund moo tax nga ne ma bàyyi loolu sëgam nag leneen liñ ma ne waroo koo def muy mees ak perruque ak ay posé ak ay xef yooyu yëpp man maa ci sonal sama bopp ngir lan muy pression sociale bi may dund soo nekkee xale am 12 ans am 15 ans am 18 ans am 22 ans bu sa moroom yépp di sol tubéy yu xat ni ràcc ni ràng soo ko solul dañ naan bokkoo ci see bokkuloo ci see bi te mbokk yi damay wax ne A ak B ak C bi ci topp D ci topp mbokk yi li la ànd ak yéen ci weeru koor gi yépp incha allahu rabbi di def suñu yóbbal suñu contribution muy zaadu sawm muy yóbbalu koor ngeen ci ànd ak seen mbokk Seydou Diallo Medina ñi ngi fegge woon ak soxna Khadija Ba ci technique bi caméraman bi di Ishaqa Diawo mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla bu mu doon suñu weeru koor bu mujj yàlla na yàlla faj sunuy aajo biir ak biti yal na yàlla defal ñu jàmm ak jàmmoo yàlla bu ñu woree yàlla bu ñu wor yàlla bu ñu wor wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala